أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñoo ngi ànd ak yéen ba tey ci kitaabu tawxid ñoo ngi ci ba léegi sunu bunt bi muy baabu ma jaa fi qawlihi taala innama dhalikum ash-shaytan yukhawifu awliyaahu ba tey ñoo ngi ci buntu boobu tey ñuy jël xadiisu abi said mu nekk marfu mu ne inna min daafi lyaqin an turdiya annaas bi saxti llah wa an taxmadahum ala rizqi llah wa an tazummahum ala ma lam yu'tika Allah inna rizqa Allahi la yajurruhu harsu haris wa la yarudduhu kirahiyatu karih hadis bi rawahu Abu Naim Abu Abu Nuaim fil Hilya ak Bayhaqi solo na ko abi sayid nee na yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na bokk na ci doful yaqin mooy ñàkk yëg-yëg bokk na ci an turdiya naas bi saxatillah ngay ut kontaante nit ñi ci meru yàlla ngay ut ngërëmal nit ñi ci meru yàlla nga bëgg nit ñi kontaan ci yow ci loo xam ne yow meru yàlla nga ci am yonent bi nee na loolu bokk na dëgg-dëgg ci ñàkk yaqiin ci yàlla tabaraka wa taala mu ne wa an taxmadahum ala rizqillah bokk na ci ñàkk yëg-yëg ngay gërëm nit ñi ci wërsëg boo xam ne yàlla la ko jox fi mu nekk nii ci nit ñi koo fi jox dara ceeb suukar dund xaalis yow lay gërëm du gërëm yàlla loolu bokk na ci ñàkk yëg-yëg mooy ngay gërëm nit ñi ci wërsëg woo xam ne yàlla la ko indil wa an tazummahum ala ma lam yutika allah bokk na ci ñàkk yëg-yëg aussi ngay xas nit ñi di leen ŋàññ ci lu la yàlla joxul tey bu la benn waay ne dinaa la jox nga ñëw joxu la kooku da nga koy ŋàññi da nga koy wax lu bon da nga koy xas nga dëkkal ko fu mu dëkkul fekk loolu mu la war a jox yàlla moo jëlul décision ci boppam pour nga jot ko yonent bi nee na inna rizqa allah la yajurruhu xarsu xaris wërsëgul yàlla kër këri nit taxul mu jot ci kër këri taxul nga am wërsëg ndax kër këri taxuta am jàng taxut a paase kër kër yi taxut nga am loo xër xër xër xër te yàlla waxul da nga am doo am kon nit ñi bu ñu déggoon xadis bi sax kon duñ dem jël gaal yi di dee ci àll bi ndax lan yenent bi nee na rizq allah laa yajurruhu xarsu xaris aji xër xër gi mu xër bëgg am alal yonent bi neen loolu taxul nga am ala yarudduhu kirahiyatu kaari waaye bañ nit am du tax nit am nga xool nit neexu la rek nga ne kii du am dara ah déedéet su yàlla waxee ne nit day am kooku day am bañ nit du tax mu am kon hadis bi nekk sunu kanam danañ ci jàng lu bare bare bare bari waaye gis ci lu bare bare bari ci nit ñi wuute bi ñu wuuteeg pas-pas yu wér yi Abu Saïd moo ñu doon nettali hadis bi mu ne lan inna min daafal yaqin bokk na ci lompoñu yaqin yaqin ak iman nag du benn nit mun na am iman te du am yaqin yaqin mooy dagere bi gën a rëy iman yaqin mooy nga am kóolute am confiance ci yàlla yaqin mooy nga yëg yàlla ci ñaari aaya wala ñett benn bi ci yonent yàlla Muusa benn bi ci yonent yàlla Muhammad benn yi ci saxaaba yi bi ci yonent yàlla Muusa mooy keroog ba Muusa Firawna sësee ko ci gé- géej gu xonq gi mu war a traversé ñëw na ba ci géej gi géej gi tëju mu xool ginnaawam gis Firawna di ñëw ak armée yi Moussa daal di jàkkaarloog peuple am banu Israël ñenn ñi nga xam ne amuñu yaqiin amuñu yëg-yëg ci yàlla lan lañ ko wax inna la mudrakun danañ ñu jot danañ ñu rey yaa nu fi indi yi nga xamante ne mënoo dara ci Moussa waroo woon jéem a xuus géej gi naan da nga ñu koy traversé lool waaye comme moom am na kóolute ci yàlla lan la tontu kallaa la wax déedéet inna ma'i rabbi allahu akbar est ce que yàlla dafa taxaw foofu gars yi di ko gis ah yan preuve lay won mbooloo mi ne maa ngi ànd ak sama borom allahu akbar waaye xoolal dafa am kóolute loolu mooy yaqiin nga am yëg-yëg ci yàlla nga yëg ne yàlla ba mu la bindee borom boobu moo assuré ne dana la dundal waaw yàlla moom wa man yatawakkal ala allahi fa huwa xasbu wa ma min dabbatin fi l ard illa ala allahi risquha moo tax omar ibnu alxataab di wax nit ñi law tawakkaltum hadisu omar law tawakkaltum ala allahi xaqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu tayr su ngeen gëmoon yàlla dëgg-dëgg ni picc yi gëmee yàlla kon yàlla dina leen wërsëgal picc yi yan société la ñuy liggéey damay laajte ndax picc yi dinañ liggéey ah xar yi dañuy liggéey xar yi sax liggéeyuñ bal xar yi ci sa biir kër sax am na fi xar yoo xam ne dund gi ñuy dundee instant bi nit ñi sax dundeetun ko d'accord ngeen ci li ma wax walla am na fi ay nit ñoo xam ne ñu ngi yor ay xeeti xar wala ay xeeti ginaar wala ay xeeti xaj wala ay xeeti mala dundal giñ leen di dundal budget la te rab yooyu ñu ngi ci biir kër yi toog liggéeyuñ dara ñu ngi lekk di naan di faju ñu am courant ah ñu leen di sang ñu rafet bay bëgg dee ñoom dañoo wakkulte ci yàlla gis nga doomu aadama rek mooy torox ci kaw suuf lu tax yàlla da ko ne woon bàyyil ma dundal la mun a yàlla bul ma dundal bàyyi ma dundal sama bopp mun a doomu aadama alko moo tax balaa ngay dund lu ne ngay daj pour nga dund waaye xoolal ñi ne yàlla ñi yàlla waxoon bàyyi leen ma dundal leen ñooñu teguñ ci baat ñëppay dund xool leen ñooñu ñëpp ñëppay dund waaye ñi yàlla ne woon bàyyi leen ma dundal leen ñooñu lànk ñëpp a sonn kon bokk na ci dooful yaqin an turdiya naas bi saxatillah dëgg-dëgg ñàkk yaqin ci yàlla weesuwul ngay kontaanoo nit ñi ci meru yàlla xool leen loolu tey ci biir dëkk bi di nga gis bàyyi juy kontaanloo doomam ci lu neexul yàlla ngir am ngërëmu doomam doom juy sonn ci bàyyi ci lu neexul yàlla jëkkër juy sonn ci jabar ci lu neexul yàlla waaye neex na jabar ci jabar juy sonn ci jëkkëram ci lu neexul yàlla waaye neex na jëkkëram maanaam foo ko natt genn wàllu hadis bi foo ko natt ci biir société bi da nga ciy teg bët ba ci ay patron yoo xam ne seeni emploi dañ leen di defal loo xam ne neexul yàlla pour am bànneexu patron bi loolu foo ko natt ci biir société bi gis ko foo ko natt ci biir réew mi gis ko ay taalibe yoo xam ne sax dañuy defal seen sëriñ lu neexul yàlla pour am kontaan te sëriñ bi ak ngërëmam moo tax yonent bi nee na bokk na ci ah bokk na ci dooful iman ngay ut ngërëmal nit ñi ci meru yàlla lan moo tax wallahu wa rasuluhu ahaqu in kuntum mu'minin yàlla ku yonentam bu fekkente ne da ngeen di at ngërëm kan moo ci gën a yey yàlla ku yonent ñoo gën a yey ci kontaan ci yow balaa keneen di kontaan na yàlla ku yonent am ci yow ngërëm ba pare waaye bokk na ci daaful iman an tahmadahum ala rizqillah allahu akbar ngay gërëm nit ñi ci wërsëg boo xam ne yàlla la ko jox lii nga am kenn joxu la ko yàlla la ko jox su la ko waa ji joxul woon it keneen indi la ko waaw allahu akbar bilaay nit bu amee kóolute ci yàlla dootoo nuroog nit ñi dund dootoo bokk ak nit ñi àdduna bu ngeen di dund tey ci ñun ku nekk ci ñun ki la jox kooku ngay gërëm fekk lim la jox déjà programme yàlla daf ko jaarale ci loxoom rek su la ko joxuloon yàlla indi ko parce que yow yaa ko war a am kon foog di nga ko am benn boroom xam-xam day nettali benn xissa mu ne benn waaye dafa tëdd guddi di nelaw rek mu gént ñu ne ko demal kër diw nga jox ko ration lu mu dunde mu yeewu moom waajooju gént gént gi daal di arrière otom def ci lu nekk li ñuy dundee li ñuy soxla ci dund ba mu fees mu taal jëm kër waa ji ñi mu ñëwee mu sone waa ji ubbi mu fëgg waa ji ubbi mu ne ko li ci maal bi yëpp yaay borom mu ubbi maal bi waa ji wàcce wàcce moo ki doomam ñu wàcce ba kër ga fees mu jël carte visite am mu ne waa ji am bu jeexee nga woo ma ma indiwaat waa ji ne ko déedéet soxlawu ma sa carte visite su jeexee ki la yabal nga indi fi lii kooku laay woowaat rek est-ce que man maa la sone pour nga ñëw indil ma lii mu ne déedéet ndaa jeex na yàlla mi la yabal nga ñëw fi heure bi bàyyi say nelaw yi xeewu indi ko man yàlla moom laay woo gis nga kooku ni mu amee yaqiin ne yàlla mooy wërsëgale wa ma min dabbatin fil ard illa ala allahi rizqaha yàlla mooy yor wërsëg dafa am fu mu koy jaarale nag foo mën a ne insha allah da nga ciy jot soo yàkkamtiwul nga am wërsëg bu dagan bu sell ñi yàkkamti nag ñooñ ngay gis tey ñoo am wërsëg bu araam ñi ngay gis nii yàkkamti xëy rek ne foog nga am alal dugg ci lu ne dugg ci lu ne bu jaree nga rey ni sax nga rey ko pour nga am alal li may nettali barki démb benn xissa benn waaye bu bëgg a tukki dem Canada ñu boole ko benn sëriñ sëriñ bi ne ko dama ngay indi muus mu ñuul bopp muus mu ñuul waa ji dugg ci dëkk bi di ut muus mu ñuul di dugg ci tabax yi yàqu yi guddi mel na ko dof dëkk koñ bi xale yëpp mu neexal la ne leen utal leen ma bopp muus mu ñuul bis bi waa ji gisee muus mu ñuul mi daf ko jàpp dugal ko ci saak dem ba pompier boobu garage bi mu ngi pompier mu dugg ci benn sept place jëm ak muus mi dëkk bi sëriñ bi nekk muus mi di kut comme daf ko jàpp ni uuf ko dugal ko ci suufu tànkam yenn saa yi comme muus mi day di muus mi di kër këri naa ngi di tëb ci biir saag bi mu bolok su ko su muus mi tëbee mu boloke ko mi ngi den ak benn xale bu jigéen xale bu jigéen bi tiit jékki-jékki rek daal di yuuxu daal ne safaru kii dafa sàcc liir kii nit la yor mu ngi nii ci biir saag bi ñu daal di durwaatu oto bi coow li jóg kërti kërti anam mu ne mu ngi nii saag bi ba ñu duggee Dakar ba fii saag bi am na lu ciy kërti kërti kii nit la ci dugal bi gaa yi bi ko gaa yi songee mu ne leen déedéet du nit man damay toxu maa ngi damay toxu sama muus laa yor muus la sama muus la damay toxu ak moom gaa yi ne ko ah ñu xool gaa yi yërndu gis muus la ñu ne ah pourtant wax na dëgg de muus la de gis nga fi mu jaar mu ne day toxu muusam la te muus mi da koo miin bugg ko bàyyi ci dëkk bi da ko bugg a yóbbaale ndax day bañ muus mi tumaranke gars yi daal di jàpp confiance am yërmande ñu bàyyi ko mu egg ak muus ma ci sëriñ bi sëriñ bi rendi muus daal di koy defal li mu koy defal xërëm xë defal ko ay xërëm li muy génne ci bopp bi mu génne ko ci daal di ko koy takkal ab téere ne ko demal waaye pour nga xam téere bi baax na garage ngay njëkkee garage booy ñibbi Dakar garage ngay njëkki boo demee jëlal set place toogal ci kanam gars yi li leen am alal jaral bu leen ko di yàlla jaraloon diine kon dañuy réussir leen alal jaral su leen ko yàlla jaraloon wallahi danañu réussir waa ñu ñëw rek sooy mu set place bi toog ci kanam xam nga set place yi ñiy laaj paas bokk ñoo chauffeur bi ñeneen ñooy ñëw laaj bu rek waa ji daal di nekk na waajee paas yow nee na mu ne këj waa ji na ko eh paas mu ne këj waa ji di laaj ñi ci ginnaaw daal di koy fàtte oto bi départ xam nga fayul mu am confiance la ilaha réussir naa mu ne fes yegg aéroport jël ay bagage am ndeke am na ñu mu war a àndal mu ne fes ushare aéroport ñëw ñu jëndiloo ko billet xale xale bu ndaw ñooñu mu àndal mu dem jënd billet xale dem toog bi mu toog bi muy jàll bi mu duggee ba toog am ñuy contrôler ñëw ne koy ana sa billet mu ne këj ñu ne ko an sa biir mu ne kaj kaay ne ko an sa biir mu ne kaj avion bi départ ni mu defoon ni mu defoon ci oto ba avion bi naaw ndege ñooñu téléphoné nañ bu yàgg aéroport Canada gendarme yi mu ne daa wàcc rek di espérer ne yegg ne rek mu jékki-jékki rek gis ñu ñu ñu njatt ko boole bopp beeg tànk yeeg loxo yi takk ci ay buum mu nag mu ne gis nga ndomb bi ma ndomb bi ñu ma defaloon dërëmuus bi ci lañ ma dóor dóor yoo xam ne mu ne ci lañ ma jàpp caw ma ndomb bi ba ma normal mu ne ñu tëj ma fa weer boo xam ne dañ ma dóor dóor yu metti daan ma indi mu ne nag mu yegg si rek toog nekk Dakar rek ndeysaan mu jékki-jékki rek gis ki ko boole woon ak sëriñ bi kooku ne ko eh mu ne ko gis nga yaag sa sëriñ ak diw ak diw yéen ñëpp seen nangam bu ma bu ma ko laaj waa ji waxagul sax mu boole waa ji ak sëriñ baak ñë mu àndoon yëpp waa ji ne ko lu xew mu ne ko mane bul ma laaj lan la dem leen yéen ñëpp ay trian ngeen wéyu yu bon yi waa xoolal muus mi mu ci rey nga defa ne bu doon ku rey muus mu ñuul tukki muus mu ñuul dina am ci àdduna fan lañ teg loolu ay xërëma ki gàllaaj dafa ne da ngay takk gàllaaj ba pare sax loolu même bu fekkoon dëgg loolu sàcc la te baaxul et puis bu ñëpp defee noonu société yi fu ñu jëm jullit daal day gëm yàlla wàkkiirul ci moom jaar fi nga war a jaar nga dem liggéey liggéey bu dagan wàkkirlul ci yàlla yàlla may la lu sell loolu mooy diine waaye di rey ay muus ak ay xaj ak di sangoo ay deret ak loolu ab jullit du ko def bokk na ci daaful yaqin li yonent bi wax anta anta zummahum ala ma lam yatika allah ngay ŋàññi nit ñi ci lu la yàlla joxul yàlla joxul alal nga defe ne nit ñi ñoo la xaj ngay ŋàññi nit ñi ku ne nga xas ku ne nga dëkkal ko fu mu warta dëkk waaw ñoom diw dañoo bon ndax waxoon naa leen nañ ma nangam joxuñu ma déedéet yàlla ko programme wul santal yàlla ci li la yàlla jox lépp loo xam ne amoo ko bul tooñ kenn yàlla la bu dee jabar joo waroon takk takkoo ko yàlla la bu dee liggéey boo waroon am amoo ko yàlla la bu dee tukki boo waroon tukki yàlla la billaahi wallahi taalaahi benn mbokk dimanche def ma woo jeudi def ma woo ne ma yónnee naa la ordinateur bu bees taq del moo ngi ñëw mu woo ma dimanche ne ma ah am na lu xew de ma ne ko lan la mu ne ma waa ji doon indi ordinateur bi daal mu ngi foofu Sénégal waaye nee na ma ordinateur bi dafa réer ci ay bagage ma ne ko ah bon mu ne waaw ma ne ko waa ji woo na la mu ne ma woowu jox ma numéro mu jox ma ko ma woo waa ji waa ji ne ma ordinateur bi dafa réer sama- ak samay bagage de su dimanche démb ma waat ko mu ne ma dafa réer kon yàlla moo ko dogal bu ko jëlee moo ko yàlla la jeex na bu ko jëlee moo ko yàlla la du moom nun de ku yàlla la ëllëg ku yaakaar ne da ngay jël alalu nit ñi nga rëcc fii waaye da ngay tappale fii nga rëcc ah li yàlla wax donc moom mooy am lu yàlla programme mooy am gis nga loolu soo ko xamee nga noppalu du kenn yàlla la ndax loolu la yàlla dogal kon wërsëg wi la yàlla jox bul ci sant kenn ci meru yàlla waaye li la yàlla xañ it bul ci ŋàññi kenn xamal ne yàlla la yàlla moo la ko xañ kenn xañu la ko yàlla moo la ko xañ mu ngoog waaye bokk na ci dooful yaqin nga yëg ne inna rizqa allah la yajurruhu xarsu xaris nekk intellectuel am diplôme rëy bopp ami pexe mën a wax ñaw xalima taxul nga am et puis sooy xool àdduna bi ñu gën a sonn ci liggéey ñooy ñu gën a ñàkk tabax bu ñuy tabax bu ñuy tabax benn château kan moo ci ëppale xala ci xaalis bi ku may tontu bu ñu doon tabax fii benn château kan moo ëppale xaalis architecte bi moo ci ëpp xaalis kan moo ci gën a sonn maçon bi sax gënu cee sonn minebre bi moo ci gën a dee ndax mooy gas mooy yenu birig yi mooy yenu ciment bi mooy gaase gis nga te moom moo ci gën a dee mais moo ci gën a tuutile kan moo ci gën a ëppale ki nga xam ne dafa ci dara daanaka lu dul ay dessin ak ay naan defal fii lii ak fii lii fi war a nekk moom buy ñëw sax ay gants lay sol yenn saa yi ak ay mbax na yoo xam ne ak kos boo xam ne da ciy teg benn mante pour bu ko daanaka du du sax ñàkk xoolal gis nga kon ndeke forcé ak doole ak kër këri taxul nit am yàlla mooy joxe nga gis fi benn waay boo xam ne yaa ko ëpp diplôme pop ne moo la ëpp alal nga gis koo xam ne bu njëkk bi Sénégal lan lañ defoon seen fikr seen bopp mooy ku jàngul français du tekki wala loolu tey xew loolu xewi na fi ñëpp tey xaalis Sénégal mënuñu signé soo ne leen signé leen mënuñu bindee jëm gauche mais droite la ñuy bindee loolu mooy jànguñu français xanaa loolu mooy sunanullah fil ard yàlla mooy joxe kër kër yi taxul am yàlla mooy joxe subhanahu wa taala loolu nit ñi dañ ko war a def seen bopp kër kër yi taxul nga am dañ la ko sant nag ndax yoon la waaye wala yarudduhu kiraahiyatu kaariya bañ nit wala sikku taxul nit ki tamit bañ a am mën ngaa bañ nit moom mu raw la foop ëppale la mu ne xadis bi am na fu mu mottalee beneen riwaaya wa inna allaha bi hikmatihi jaala alrawxa walfarax fi rida walyaqin wa jaala alhamma walxasna fi lshakki walsoxati xadis bi am na fu mu continué loolu mu ne na ngeen yëg ne wa anna allaha naka yàlla bi hikmatihi ci xerañam ci xam-xamam moom yàlla jaala rawxa wal farax fi rida wal yaqin ak yaatu ak bijji wërsëg ak kontante ak ngërëm yàlla nga ko def ci yaqiin kon bëri na doomu aadama bu am yaqiin day am rida day am kontaante yàlla subhanahu wa taala day am mbégte waaye day am raw waaye wa jaala al hamma yàlla def na jafe-jafe wal hazna ak naqar fi sakki wa saxati ci sikki sàkk ak mer loolu foofu la ko yàlla def mu ne euh, li muy tekki moom yaqiin boobu mu ne wal yaqiinu al muraadu bihi al imaanu kulluhu kama qaala ibnu mas'ud al yaqiin al imaanu kulluhu wa sabru nisfu al imaan rawahu tabrani bi sanadin saxiix yéen a ngi gis suma toll yéen ñi yor téere yi mu ne ibnu mas'ud nee na yaqiin liñ ci namm fii mooy ngëm ngëm lépp nag bul paaj ngëm bul ko xaaj ngëm gi yépp boo ko boolee bu dëggoo ci yow mooy yaqiin comme ni ko ibnu mas'ud waxee ibnu mas'ud nee na al yaqiin al imaanu kulluhu yaqiin mooy ngëm léppam kon pour nga am yaqiin gis nga moo tax boroom xam-xam yi bu ñuy ci madaariju saalikiin escalier yi nit di yéeg jëm ci yàlla ginnaaw islam dañ laa la iman ndax balaa dara première escalier mooy islam da ngay nekk jullit ba pare soo amee islam iman ngëm aa ngëm na loo ci teg mooy ixlaas sellal nga sellal li nga gëm lu ci tegu mooy ihsaan nga rafetal li ngay sellal gis nga noonu ngay yéegi étape escalier escalier escalier escalier ba nga egg ci yaqin waaye ñun suñu problème mooy bu ñu amee islam rek ñu ne yegg na waxuma sax iman moo tax ku yéeg escalier yi raw la nga gis yenn nit ñi di leen ñee wala di bëgg mel ni ñoom te doo ko musa doo du musa nekk du musa nekk lu tax parce que dañ laa rawee ay escalier dañ laa rawee ay immeuble munoo loolu munoo ko tëb munoo ko naaw doo ko cëppeelu ngoog kon fokk ñu jaar étape yooyu pour ñu yegg ci yenn daraja yu mag yi pour ñu yegg ci yenn capacité ngëm yàlla yi pour yàlla subhanahu wa taala ñu am ngërëmam ak kontaanteem xoola nit di egg ci daraja ngëm yàlla bu gisee lu bon mënu ko tere day saw deret egg ci daraja ngëm yàlla foo xam ne boo gisee lu bon mënoo ko dindi soo demee wanag deret ngay saw kooku xam na am na ngëm de ah egg daraja la ku la ëpp daja dagere ngëm yàlla subhanahu wa taala ku la gën a yéeg ci yoon yooyu jëm ci yàlla moo la raw kon imaan boobu lépp moom mooy yaqiin buñ ko boolee hadis boobu tabraani solo na ko bi sanadin saxiix mu ne waqad yadxulu fi zalika taxqiqu l iman bil qadri saabiq mu ne dana dugg ci bunt bi dëggal ngëm yàlla tabaraka wa taala ci daraja ci degré bi passé comme niñ ko waxee ci hadisu ibnu abbas hadis boobu tamit marfuu la mu ne fa in istataata an taamala birrida fi lyaqin fafal saa yoo xamante ne mën nga jëfe kontante ci yaqin mu ne def ko fa in istataata an taamala birrida jëf yi ngay jëf rawatina jëf yi ngay jëfal yàlla saa yoo ko mënee def pour yàlla kontaan ci yow Moussa loolu la waxoon wa ajjaltu ilayka rabbi li tordo banu Israël bi leen yàlla convoqué ñuy diibët Moussa daal dem bàyyi leen bi mu yegsee yàlla ne ko ana gaay mu ne yàlla man damaa dama ñëw pour nga kontaan ci man kon fexeel nga fexe nga am ngërëmal yàlla su boobaa ngay nekk ci yaqiin fafal mu ne fay lam tastati fa inna fi sabri ala ma takrah xayrun kasir su fekkee mënoo egg foofu kon fexeel nga dëkke muñ muñ ndax muñ kat rawatina muñ loo bëggul yiw bu bari moo ci nekk muñ loo nam loo bëggul muñ loo xam ne gërëmoo ko yonent bi nee na xayrun kasiir moo ci nekk yiw bu bare bare bare bare mu ne am na ci beneen riwaaya mu ne fa qultu ya rasulallah kayfa asna'u bil yaqin waaw yonent naka laay def ak yaqin naka laay def ak yaqin naka laay def ba am yaqin qaala an taalama anna ma asaabak lam yakun li yuxti'ak wa anna wa ma axta'ak lam yakun li yusibak allahu akbar waaye waaye boo bëggee gi ci yaqin naka laay def ba am yaqin ma am yëg-yëg ma am kóolute ci yàlla yonent bi ne ko an taalama na nga yëg ne annama asaabaka lépp lu la dal lam yakun li yuxtika waru la woon mooy su dal sa kaw bul wax ne xëy na xam nga loo gisee lii dal sama kaw dama jaarul nii dama waxul ak kii dama demul woon ci diw mukk li dal sa kaw dafa waroon dal waru la woon mooy te mënoo ci woon rëcc parce que yàlla moo programmé dafa war a këpp sa kaw anna ma asaabak lam yakun li yuxtiik li dal sa kaw dafa waroon dal sa kaw est ce que nit ñi am nañ ngëm yàlla bi fii ku fi dara dal lu ñuy wax ku fi dem kër lekk sa biir metti lu ñuy wax ku fi dajeeg nit nuyu ko sa bopp metti lu ñuy wax ku fi dem uti liggéey amoo looy wax moo tax gis nga même même ñi même ñi tux yàmbaa di dof sax buñ leen yóbbee ci sëriñ yi da ngay dégg ñu ne kii dañ koo liggéey kii dañ koo xërëm kii dafa am ku mu romb kii tantaam kii bàjja moo tax kër yëpp tas na mbokk yëpp a tas ak bëri kër yu tas ndax lan ay xërëm yu dul jeex fekk dara amu ci kenn xërëmu la yàlla indi feebaram sa kaw wala yow yaa dugg ci say pexe musiba daal lay dal gis nga nit su gëmee ne lépp lu ma dal daf ma war a dal rek jeex na bu kenn tooñ kenn waaye gis nga tey am na ñoo xamante ne seen àdduna yàqu na parce que tam nañ leen ay dumm ci ay ruq ba ñu toxu ci ruq yooyu wala ba ñu dee loolu nekk ci seen sabab li détruire seen dund ci àdduna kon nit ñi bu ñu amee ngëm gi yonent bi alayhi salaatu salaam wax ne nga yëg ne annama asaabaka lam yakun li yuxtiik li dal sa kaw dafa waroon dal mënu la woon mooy ak foo mënoon nekk ak ku la mun a protéger li la war a dal li yàlla programme daf lay dal daf lay dal waaye wa ma axtaaka lam yakun li yusibak li la warul dal tamit du la dal waaw li la warul dal kenn mun ta fexe ba mu dal la mbokk yi Sénégal génn nañ fi ay événement yoo xamante ne yéen ñëpp xam ngeen ne loolu mbiru yàlla la diggante Abdou Diouf ak Ablaye Wade diggante Ablaye Wade ak Macky Sall loolu ñëpp war nañ xam ne yàlla la du kenn lan moo fi jëlee Abdou Ablaye Abdou Diouf lu ko fi jëlee ñaataat la fi Abdou Diouf def ah ëpp ko PS lu ñu def Sénégal Abdou Diouf vingt ans la fi def aywa Ablaye Wade ñaata la fi def dix ans douze ans kenn xalaatul woon ne bis dinañu Ablaye Wade gañe Abdou Diouf est-ce que xalaatoon nañ ko Sénégal kenn xalaatu ko woon waaye yàlla Ablaye Wade bi mu toogee moom tamit ba ne moom mooy yàlla kenn xalaatul woon ne Macky Sall moo ko fi jëlee waaye gis nga yàlla maa yàlla moo yor programme bi du nit ñi Macky Sall kenn xalaatul woon day falu Sénégal waaye yàlla moo tax nit ñi bu ñu gëmee yàlla noppalu bu ñu gëmul yàlla nag gëm ay sëriñ ak ay xërëm ak ay xarfa fuufa di sangoog ndeysaan benn benn benn soxna ndeysaan bu baax mu ne sama jëkkër day sangu rek terrasse bi bëgg bëgg a yàqu is guddi guddi mu ngi picc keneen ki moom nee na dafa bàyyi ba jëkkër ji di sangu 4 heures du matin rek bu simmeeku dung ci mu ne kookaan la rek jëkkër ji daw ni ko yow da nga yee xale yi mu ne ko moom dama xamoon ndax yow la mu ne ko yaa ko tey xam nga ne fii kenn du fa dugg heure bi di sangu man toog maa fa nekk mu ne maa ko tey di lu muy dox di sangu 4 heures du matin yaramu neen ci digg kër ah mel na ku dof mais boo toppee sëriñ yi da ngay dof nee na ma xool bi mu paree sangu ma xool paan bi gis mu ay guro yu ñu jam ay pusoog xool yi fu dof yooyu te ñoom ñi lay wax sangul amuñu dara ñoom dañoo mun a sangu pour ñu am da ngay gis ku gàddoo otoom 4x4 na far ci àll bi oto boo xam ne foo ko gaaree ñu lay xoolaat nga wàcc costume boo xam ne nga fekk benn waay boo xam ne kër néeg bi mu bugg a fanaan ma nga bugg a daanu amul sax fauteuil boo toog der la lay lalal wala benn sijaada boo xam ne tët tët tët nga ne ko xoolal ma samay affaire kooku mu am bu munoon dara dina nekk foofu dina dëkk foofu ci àll boobu ci tàngaay boobu amul courant amul ndox amul ndox mu sedd amul dara nga fekkoo naan ko xoolal ma samay mbir nit ñi duñ amuñu xel balaa mu lay xoolal sa mbir ba pare mu ne la man xoolal man defaral ma samay mbir ba pare nga bàyyi fa lu bëri loo xam ne ay fan waa ji jàpp lay lekk léegi sax am na ci Dakar ñu fi nekk ñoom dañoo muus boo ñëwee dañ naan la ñeenti kilo yàpp laa koy seete keneen ñëw mu ne la ñeenti kilo pomme de terre keneen ñëw ñu ne la ñeenti kilo soble ah kooku fu muy mujj ngoon gi am na lu mu reere waaw nit ñaa ngi ran laaj na ci yàpp kële mu ñëw mu ne ko indi foofu dix mille moom koo koy jënd diwlin fee gaz bi bu ngeen di génn bu ngeen ñëwaat guddi fekk muy lekk yàpp mais nit ñi ah bëri na seen koñ de dafa dëkk dëkk bi yëpp loolu la fi nekk ma gis naa imam boo xamante ne xam nga lu muy bënn yàpp kilo yàpp ku am yàpp ku ne mu ne dama ngeen di yàpp waaw ndeysaan comme nit ñi ñoom duñu xalaat ay dof lañ yàlla moo bloqué seen xel yi duñu xalaat comme jëmuñu ci yàlla kay ay dof la nii nekk foo dëkk bi yëpp looloo fi am nga gis kii day laaj ay xar am na koo xam ne ay mbax ne lay laaj mbax ne mbax ne yu weex yi boo waxee mu ne la indi ma 40 mbax ne ah nga ni 40 mbax ne mu ne la wala boo ko fekkee amoo temps nga indi mbax ne mu ne 1000 francs la 40 mbax ne mbax ne mu nekk 1000 francs ñaata la 40 000 mu ne ay ilimaan laa koy jox loolu la wax ay ilimaan ak borom xam-xam boo demee mu jël 40 000 yi ne ko daba ci poosam jox ko kenn day fen noonu lañ leen di naxee waaw kenn daal man danga ma war a jox xar mu weex laa war a rey am naa sama benn pël mu nga fële ci àll ba jox ma rek dinaa ko mu indi xar mi boo ko joxee mu ne ko daba ci poosam du indi tus jëndul dërëm noonu lañ leen di def amul kenn ku ñu xam mais comme comme nit ñi dañoo bloqué seen bopp gëmunu yàlla ay xarfa fuufa lañ gëm ak ay sangu lañ gëm ak ay suul ak sulli lañ gëm moo tax loo ci gis waaw dal nañu yàlla dimbali mu ne bokk na ci dëgg-dëgg li lay jox yaxiin nga xam ne li dal sa kaw daf la war a dal li la mooy waru la woon dal gis nga boo amee fitra bu set bi da ngay féex dootoo sangu dootoo naan doo takk doo diw yii waa Sénégal di gëm naan boo gëmul xarfa fuufa xarfa fuufa ne la foofu boo bëreewul ñu bëre daanu sa kaw gis nga dëkk bi ku fi gëmul lii pararara am noonu yàlla dimbali yooyu amul benn njëriñ da ngay perte sa alal ba pare am sa meru boroom perte sa alal ba pare yàlla mere la subhanahu wa taala mu ne ñëw na ci wax ji mu wax ne an turdiya naas bi saxti llah mu ne an tusira ridaahum ala ridaillah lan mooy ngay ut kontaante nit ñi ci meru yàlla mooy ngay ut lu kontaan loo nit ñi ci loo xamante ne boo ko defee yàlla mere la xar bi nga indi ci kër gi rey ko jël deret ji wis ko ci kër gi yëpp nga jël yàpp bi jox ko waa koñ bi waa yàpp waa koñ bi dañoo kontaan ci yow wala dañ laa mere dañuy kontaan yow parce que jox nga leen yàpp mais yàlla léegi nag loolu nga def yàlla loolu la ñuy def ci loolu rek lañu dëkk am na benn waaye bu tawaxoon baar ci wetu jàkk xanaa bu waxee loolu ñu bëri ñu bëri xam nañ fi may wax yaay na baar bi du fi ubbi ki kii def ñu yàpp ñëw ba ci buntub jàkk ji di ubbi baar mu daal di jaatal baar bi def ci boulangerie maanaam boulangerie sax la njëkk a nekkoon mu toj beneen côté bi def ko baar waa jàkka ji ne kii dafa repp waaye fan la mujjee ak waa jàkka ji paa bu sëlmal mu jox la ñetti kilo mburu yu tàng jër ku sëlmal mu jox la ñetti kilo mburu yu tàng jër vies doore ku sëlmal mu dóor la trois ku sëlmal def ko une semaine mujj gi waa jàkka ji bu ñaanee ñu ne ñaanal leen diw waxatuñ léegi problème baa ne ñaanal leen ko gis nga mooy nga ut kontaante nit ñi ci meru yàlla maanaam ne nit ñi kontaan ci ci yàlla na mer loolu ban diine la yal nañu yàlla dimbali yal nañu yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp ko yal nañu yàlla woon neen ñu wërsëgal ñu sori ko kon kenn warta ut kontaantaloo nit ñi ngërëmal nit ñi bi an tuwaafiqahum ala tarki ma amara allahu bi lenn saa yi nga gis koo xam ne dañ koy bàyyiloo santaane yàlla mu bàyyi ko ngir lan ah man bu ma ko defee comme gars yi dañ may kii ba ci sunu sunna yi ñuy dund léeg-léeg nga gis ku bàyyi xabdu ngir papaam non man mënuma ba noo xam nga comme paa bi day mer ah te ñun nangam lañ ñun duñ bu ñuy julli duñ jël duñu jël sunu loxo teg sunu dënn waaw kon sunu waa kër dañuy mer nañu xam isa nga jigéen ju ne non man mënuma muuru parce que sama alaaji bi bëggul ma muuru waaw ñun duñu muuru mooy bàyyi lu santaane yàlla ngir nit ñi kontaan waaw non sama papa bëggul ma dem jàkk non sama jëkkër bëggul ma julli non sama jëkkër bëggul ma woor non ki fii fi may liggéeyee bëgguñu ko fa julli kon non du ma julli ah parce que fii dañuy bañ ko fi julli te jë- te nag liggéey jaamu yàlla la waaw ndax suñ ma dàqee léegi ah tuuf suñ la dàqee xanaa yow rek yow yaay dundal sa bopp ana yàlla ayna allah man taraka shay'an lillah awadahu llahu xayran minhu ku bàyyi dara ngir yàlla yàlla jox la lu ko gën nga nekk fu la dul julliloo nga continue fa ngir kontaanteloo borom société ba bàyyi yàlla man ñi ma xamoon yëpp ñu bàyyi loolu ngir yàlla seeni patron di leen bunduxataal ñu bàyyi ngir yàlla wallahi ñëpp a tekki ñëpp a avancé parce que yàlla moo lay moo yàlla la du du nit ñi ñàkk a gëm yàlla mi ngi tàmbalee nga gëm ne nit kii kii moo may dundal kii moo yor sama mbir foofu la ñàkk a gëm yàlla tàmbalee nga yaakaar ne kii moo la yor kii moo yor sa avenir même borom kër gi nga nekkal ci kër gi nga nekk jigéen di sëy bis boo gëmee ne moo la yor alku nga ñun ñi sax yoruñu suñu bopp kenn yorul yàlla nu yor ñaata borom kër ngeen xam yu dee depuis seen doom yi seen ginnaaw dund nañ fi ba xëy nekk ay président wala ay ministre te seen papa yi dee nañ bu yàgg xoolal tey rajo bi ma doon déglu jigéen joo xam ne xamul papaam ñëw ci rajo di déclaré man sama papa laa bëgg a xam mu ngi tuddoon nangam sant nangam mosuma ko gis déggoon naa ñu ne côté sàngam la dëkk bu yàgg la ko waxoon ci rajo bi tey benn baajanam ñëw daan ne ah xale bu jigéen boobu de yaakaar naa ne ki muy laaj sama mag la waaye nag papa ji génn na àdduna dundatu waaw kon xolo xale bu jigéen boobu te nee na tey jii maa ngi ci ay fanweeri at ak ak nangam ah fanweeri at ak juróom-ñett nee na tey am naa ko xolo fanweeri at ak juróom-ñett musta gis papaam bi ko jur te mu ngi dund parce que nee na maa ngi sëy ñàkkuma dara aussi waxuma dama bëgg a gis sama papa sax parce que dama am problème non dama ko war a gis parce que mooy sama papa maa ngi sëy maa ngi ak sama lépp soxlawu ma dërëm man daal ma gis ko rek liy mbetteel mooy ñu ne ko paapa jooju génn àdduna bu yàgg kon kooku mooy dund na ba dee mu sa gis boppam boppam dund na ba dee moom du mu su gis te mu ngi dund kon dund yàllaa ko yor du nit ñi ñaata jigéen ngeen xam fi yoo xam ne ñaata xale yi nga xam ne yi nga xam ne bi ñu leen nekkee liir la seen paay gaañu xale yooyu tey ñu ngi yor lu rëy ci àddina bi ñaata kenn ku la ku ñàkk gëm yàlla mi ngi dépendre ci ne nga gëm ne fi ngay liggéeyee ñoo ñoo la yor wala sa papa la yor wala di wala yor wala nangam bi wala ñii ñoo la yor loolu mooy ñàkk gëm yàlla dëgg wala tàmbale kon mbokk julli yi kenn du ut ngërëmal nit ñi ci meru yàlla loolu du diine wa fi'lu ma naha anhu jëf pour ay bakkaar yu dul jeex pour nit ñi kontaan ci yow loolu amul benn jërën istijlaaban li ridaahum ngay ut seen ngir seen seen kontaante seen ngërëmte mu ne wa haza yunaafi quwatul yaqin loolu dafa weddi dëgg-dëgg pas-pasu yaqin wa kamalul iman matu ngëm yàlla mu ngi nekk ci fii isaar maa yurdi llahu taala ala ma tahwaahu ngëm yàlla dëgg mi ngi nekk ci nga ko ut ngërëmal yàlla moom ci boppam subhanahu wa taala ci loo xamante ne dafa wuuteeg bànneexu nit ñi ala ma tahwa nufus wa sabru ala muxaalafati hawaha nga wuuteeg nit ñi nga muñ ci wuuteeg pas-pasu nit ñi ak seeni bànneex sunu borom subhanahu wa taala wax na ci quran alladina yuballiguna risalatillah wa yaxshawnahu wa la yaxshawna ahadan illa allah wa kafa billahi hasiba yonent yi yàllaa leen tagg nee na ñooy ñi nga xam ne dañuy jottali message yu yàlla ragaluñu kenn ku dul yàlla gis nga yonent yi amul yonent boo xam ne ñëw na di négocier ak nit ñi naan waaw c'est que ñi moom famille bi fi laa bokk kër gi fi laa bokk ñi ay mag lañ ci dëkk bi laa leen fekk kon xaaral ma waxee ko déedéet yonent bu ñëw rek li la yàlla wax ngay exécuté su neexee nit ñi ak bu ñu naqaree parce que amoo droit ragal keneen ku dul yàlla alladina yuballiguna risalatillah yonent yi yàllaa leen tàgg ndax message yu yàlla lañ yoroon moo tax amul yonent bu négocier wax leen ma kan la yonent yàlla Muhammad sax gaa yi yàlla da ko ne waddu law tudhinu fa yudhinu gaa yi bëggoon nañ nga nooyal de ñoom tamit ñu nooyal waaw waaye gis ngeen dafa dëgër këcc ci seen kanam ba keroog bañ ko ne boo bëggee ñu def la buur boo bëggee ñu jox la alal boo bëggee ñu jox la jigéen ju rafet boo bëggee proposition yi bëri torop waaye dafa ne wallahi yaa am yow sama baay maa ngi giñ ne bu ngeen jëloon jant bi teg sama kaw ndeyjoor weer bi sama loxo càmmoñ bii di ma lakk bii di ma diisal lii may wax duma ko bàyyi lu dul yàlla def lu ko neex kon loolu moom mooy sunu darsu tey ñoo ngi ñaan bur yàlla jalla jalaaluhu ñu jéggal ñu njuumte yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu